sama yaay mm-hmm. ñoom ay doom baay lan mm-hmm. ñoo bokk menn maam mm-hmm. kon jàpp naa ni tey famille bi nga xamante ni mooy famille Ngomeen tey jii sama waajur bi muy dund mu ngi woon ci biir famille bi ci groupe whatsapp yi nga xam ñoom ñoo créé woon ak yeneen ak yeneen kon deret moo ñu boole te yaayam moo ko wax ah yaayam moo ko yaayam moo ko wax ni ko Cheikh Abdou Bara Dolly mii de moonte pourtant sa mbokk la daal ni ko nii ngeen bokke Ousmane Sonko mom wotale mo mu ne man ni nga ma yabee naka te li lan bok moo nga yab man ni ma ne ko man dan lay am sew yow ba lay respecté parce que sama rak nga mhm. deug lay waxa yow kon japp na ne loolu mo jitu politique 2017 mhm. ñu tassé assemblée nationale muy wax tubaab may wax euh, may may wax olof mhm. lepp di inter rew mi mu ñew sama bureau pour ñu jàppante fassante politique man ak mom ñu diko bundu xataal ma taxaw défense ko ba ci commission ad yi ma nekkoon nag mm. démissionné woon génne rapport déclaration yi ma déclaré ba ba may wax Macky Sall naan ko tas naa méridien ba mm. mm. samay kër maris Ousmane Sonko ma ma ko yóbbee parce que bu ma antoon nag moom lii du daal mm-hmm. te moom pourtant boobu àndoon ak pouvoir moo gënoon yomb si man mm-hmm. mais ngor gi ma am ak dignité ji ma yor ak li ma askanu jaral moo ma gënal alal moo ma gënal nguur loolu moo taxoon ma choisir ànd ak moom ci insiste bi ñu ko doon teg mhm. te bu dee mu doon tey ma ànd ak moom ci insiste boobu noonu mhm. bi ñu demee ba nga xamante ni xam naa ni ñi nekk ci réseaux sociaux yi tudd seen bopp ay chroniqueur ak yenn euh, soda journalistes yi nga xamante ni dañuy bëgg seen intérêt bopp ak bëgg ay vie mhm. ma gis ñuy dund si deram nañ doon dundee si deram naan sonko nangam nangam sonko nangam naan te la ñuy wax du dëgg si ñoom moy di ko tagg daal ak yooyu waaw te du deug ci ñom te bëggu ñu sonk génn ci kasse parce que sonk bu génne ci kasse ah peut-être mu génn ci kasse mais biñu ñu ci kasse bi est-ce que déggati nga leen ngi wax léegi lan lañuy waxati hmm. ndax ñaar la fi amoon sonk génn ci kasse bi Macky Sall dem su boba legui day day jeex boko sey tay seen YouTube yu bare bare tej nañu wa deug la seen yu bëri léegi lan moko tej parce que amatu lu wax hmm, amatu matière bo xamanteni man lañ ko Sénégal bi Sénégal di leen déglu hmm. bi lolu amé Sonko bi mu nekkee ci kaso bi ma dem seet xel di murit wax naa ko fii am ñu mu bëggoon a àndal ñu joxe ngànt bi ma demee ci xalif bi waxtaan moom yëkkat sama téléphone woo njabootam ci kanamu sëriñ bi mhm. sëriñ bi jox ma ndigal ma dox la ma war dox ak sëriñ Bass Abdou mhm. Khadre mhm. ma dem seeti président Macky Sall waxtaan ak moom président woo ministre de la justice joxe maanaam ndigal ngir ka suñu gisante mu mën a yaatu te mën a nekk loo xamante ni lu discret la ma dem seeti ko hôpital fekk mu am ay jafe-jafe pour di recevoir ba mu demee kap ma ne ma seeti ko fa 45 minutes toog waxtaan ma wax ko li sëñ bi bëgg wax ko li Macky wax mu wax tontu ma ñu waxtaan mhm. tënk ci la mhm. woon fee ak lil tey ak fi ñu ëllëg mhm. ñun ñaar ñëpp ñu waxante woon bu ma nekki candidat nga jàppale ma boo nekki candidat ma jàppale la bu keneen nekki candidat ñun ñaar ñu bokk toog waxtaan ànd ak candidat bu jàppale ma man sàmm naa sama kàddu la ma waroon def naa ko. Mhm. keneen ki nekkoon candidat bi mu nekk candidat ñoom seet si wun ma. Mhm. sàkkuwun ko si man amuñu projet pour Touba lan nga bëgg ma jaay sama bopp lambar lambar yi dem foo xamante ni woowul ma fa soxla soxlawul ma wala ma na sama diggante xool projet Touba lu ma si góobee gar ko. Mhm. waaw wala déet. dëgg la lu ma si góobee gar ko moo tax. waaye nag loolu yàqul sama diggante ak ñoom. parce que moom mii bu fekkonte ne démb amutoon. tey du am. te ah, loolu dëgg la. moo tax mu am feexte trop si ñoom yor gënu yor réew mi mu mel ni maa ko yor. waaw mais mais mais damaa bëgg euh, honorable ñu.